Omar Dramé maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Omar nga bokk ci cellule de communication ba intersyndicale euh, des travailleurs du secteur primaire d'abord euh, nga wax ñu ñan ñooy euh, liggéeykatu secteur primaire bi. waaw di nuyu aussi donc seen auditrice ak seen auditeur donc yu réew mi FM di wax ne ne donc secteur primaire. donc euh, intersyndical bi dafa boole euh, ñuy liggéeye si napp bi si càmm ji ak si mbéy bi donc euh, soo leen boolee ñoom ñépp ñu am solo boo xam ne wax dëgg fa yàlla ñépp xam nañ ko si si ci koom réew mi parce que soo jëlee donc cent cent pour cent donc ci activité socio économiques yi donc soixante dix pour cent yépp secteur primaire bi donc moo ko moo ko moo ko moo koy moo koy fournir donc ñu xam ne ne donc secteur bi secteur bu ama am solo la te loolu ñëpp xam nañ ko sénégalais yi xam nañ ko aussi euh, président de la république ak gouvernement bi ñëpp xam nañ dañuy wax ne sax pour euh, ñu développer donc Sénégal il faut ñu ñu jaar par secteur primaire Euh, léegi ñu gis ni depuis un certain temps yéen a ngi nekk en mouvement d'humeur est-ce que mën nga ñu expliquer largement lan moo waral seen mouvement euh, d'humeur bi seen grève yu bari waaw jërëjëf ci question bu am solo bi parce que soo xoolee donc euh, ñu tëb tëbuwuñu rek donc nekk mouvement d'humeur parce que dañoo constaté ne secteur primaire malgré que képp bépp nguur bu fi ñëw day wax ne ne secteur primaire lañ war a sukkandiku pour euh, développer mais ñu siy liggéey fulaaluñu leen faydaluñu leen donc euh, d'ailleurs maa ngi wax ne ne donc ñuy liggéey secteur primaire ñoo gën a néewle payoor ci administration sénégalaise te loolu président de la république reconnaître na ko parce que ba muy euh, donc recevoir centrale syndicale yi première mais deux mille vingt et dafa waxoon ne donc euh, secteur primaire moo gën a am solo si réew mi mais ñi si liggéeyee seen salaire dafa néew soo ko comparé seen yeneen naataango yi nekk si yeneen ministères yi fay nañ leen benn u ñaar moom nag nee nañ ko trouver solution parce que ñu nekk si secteur bi sax bëggatuñu toog dañuy dem donc feneen parce que seen payoor dafa dafa dafa néew su ma la rappeler que euh, ingénieur donc si secteur différents secteurs yi donc ingénieur donc euh, des pêches wala ingénieur de l'élevage wala ingénieur agronome su ma la nee amuñu donc salaire bu bu bu bu weesu trois cent mille doo ma gëm te pourtant loolu mooy dëgg président rek dafa xool ne ne euh, ñu am mënul jël décret pour wàññi seen salaire parce que droit acquis kenn du ko remettre en cause maintenant ñoo xam ne dañoo nekk ci suuf day jël donc euh, day day dafa wax ñu trouver ko solution ñu xaw leen niveler tuuti ñu nekk si kaw léegi nag si la ñu retourné suñu ministère ñu waxtaan ak les différents acteurs syndicats yi ministre bi pour ñu trouver solution solution boobu nag ñu trouver ko muy solution interne solution interne boobu mun nañ rappeler ne pêche donc mobiliser woon na euh, un milliard trois cent cinquante ñu déposé woon ko euh, trésor si benn compte de dépôt ñu commencé woon sax fayeeku depuis janvier agriculture ñoom dañoo inscrire deux milliards si loi de finance donc initiale bi nga xam ne ñoom aussi donc ñu amoon na arrêté d'application ñu continuer ñu doon fayeeku depuis janvier élevage ñoom dañoo amoon décret bañ demee donc ba ñu war leen defal arrêté de répartition donc fonds yi si le ministre des finances bu fi nekkoon Abdoulaye Daouda jàlloo jël benn note circulaire ne léegi non seulement élevage donc dañuy arrêter processus bi boole si donc pêche ak agriculture ne prime yi nga xam ne dañ ko doon fayeeku depuis donc janvier dañ koy dagg. loolu nag mu nekk benn drame sociale boo xam ne tegu na si ñun parce que yokk liggéeykat su amee yokkute lu muy njëkk a def mooy xalaat euh, donc def ay projet am ñoo xam ne dañ ci contracté woon ay prêt si banques yi donc euh, à de soixante dix pour cent am ñoo xam ne aussi dañ ci defoon ay natt ak yeneen projet léegi nag état bi su jékki-jékkee tagg prime yooyu loolu moom dafa indi benn jiixi jaaxa boo xam ne ñun kenn xamul koy expliquer moom moo waraloon nag ñun ñu euh, tàmbali suñu grève bi te grève boobu donc maa ngi rappelé depuis dix huit septembre lañ ko lañ ko tàmbale waaw ngeen ngeen doon grève apple ngeen euh, lever seen mot d'ordre ngeen nekkoon si ay négociation après ngeen commencé waat ba euh, décréter 72 euh, heures fan la affaire yi rëq-rëq am ci négociation yi ba tax ngeen tàmbaliwaat grève bi ni gi crédit mercredi bi waaw lu waral loolu mooy xam nga ba ñu tàmbalee donc suñu grève bi depuis le dix maa ngi koy rappeler après dañoo def presque euh, ñeent si ay bés si grève mu taroon trop trop trop ci économie réew mi parce que ñëpp a ko yëgoon soo xoolee bépp produit boo xam ne donc euh, voilà secteur primaire si wàllum napp da ko doon euh, da si doon liggéey benn produit génnatul benn produit duggatul parce que certificat phytosan certificat sanitaire yi donc agent pes yi ñoo koy délivrer ak aussi donc euh, produit alimentaire yi nga xam ne donc pour mu pour mu dugg si réew mi euh, certificat phytosanitaire loolu agriculture moom moo koy délivrer amoon na benn jamono aussi donc euh, inspection viande yi donc ci abattoir yi amul woon parce que euh, agent de l'élevage yi ak docteur vétérinaire ñoo koy def te dañ ñëwoon en grève mu indi woon fii benn psychose ci au niveau de la population parce que dañ doon jaay ay yàpp yoo xam ne kenn consommé wu ko loolu yëpp soo ko boolee ah ak euh, activités yëpp yu nga xam ne dañuy gravité autour du secteur mu dem ba acteur yi ñu recevoir oon nañu ñu wax ne ne donc am na ay ay ay milliards la ñu perte donc si suñ grève état bi dem ba xam loolu wooñu ci table négociation woote boobu le 18 octobre la woon léegi nag ñu toog état bi si si janoo boobu noonu amoon na juróomi jëwriñ yoo xam ne ñu woon si taable bi mun nañ si citer donc Aly Ngouille Ndiaye moo yor napp ji Aly Saleh Diop yor càmm ji Pape Sagna Mbaye yor napp ji ak aussi Gallo Ba mooy ministre fonction publique bu woote woon ak ministre du travail Samba si ñu nekkoon si table bi ñu ne dañoo jos instruction si président de la république pour mu régler suñu problème léegi après si lañ mettre en place benn commission technique commission technique boobu day day xool càmbar pour mun a indi euh, ay ay solution les commission boobu donc ñaari fan après donc euh, le vingt et un ñu daje après daje boobu amul woon lu mu jur parce que euh, amul woon solution ñu dajewaat encore donc euh, euh, le vingt le le vingt trois léegi le 23 boobu gouvernement bi ñëw ak benn proposition mooy léegi au lieu donc euh, suñu ndàmpaay yu ñu doon jox donc dañ koy wàññi donc à hauteur de cinquante pour cent maanaam ku doon am cent mille léegi nag donc euh, fukki junni lañ lay jox loolu nag wax dëgg fa yàlla ba ñu ko waxee ñun d'accord ci parce que ñoom dañoo évoqué ñoo dañoo am ay jafe-jafe si wàllum budget si wàllum tension xam nga léegi nag ñun bañ ñu ko waxee ñun d'accord ci parce que parce que mënuñu comprendre principe droit acquis donc ñu koy remettre en cause depuis janvier ñu ngi touché suñu prime ñu ñëw ñu ne donc dañ koy dindi ba pare delluwaat ne dañ ñuy jox donc cinquante pour cent en ensuite suñuy euh, camarades yi nga xam ne jël nañu prêt si banques yi donc euh, banques yi nga xam ne soo fa jëlee prêt à hauteur de soixante dix pour cent la sax ñuy commencé di di envoyé des notifications parce que ñaari a ngi nii jotuñu suñu prime ñun nag d'accord ñoon après ñu xam ne donc comme ay sénégalais lañu. léegi ñu xalaat ñu ne léegi proposé nañ gouvernement bi soixante quinze pour cent bañ leen waxee loolu ñoom aussi dañoo bañ techniciens yi donc ministère des finances ñoo composé une commission bi ak euh, donc euh, fonction publique ak si léegi après ñu ñu quitté ci table de négociation bi waroon xaar nag donc plénière bi nga xam ne moo waroon régler donc problème bi parce que plénière boobu autorité politique ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo koy convoqué plénière boobu ñu waroon ko convoqué mardi bi ñu génn ni donc vingt cinq ñu woo ñu ne dañ ko reporté ba alxames wala ajjuma ji passé ñu woowaat ñu ne donc euh, probablement semaine bi ñu nekk loolu nag mu nekk loo xam ne euh, def na jiixi jaaxa suñu bopp parce que dañoo constaté ne état bi mu ngi def dilatoire mu ngi euh, weddi li mu waxoon donc ñun xam nañ ne ni wax dëgg fa yàlla suñ demee ba novembre te vers quinze novembre te fayuñu suñu prime machine yi ñu koy waxee finance dañuy tëj benn engagement dootuñ ko defate dañ te loolu su amee dañuy yóbbuwaat ba mois de mars léegi ñun ba xoolee loolu yëpp xam ne ne lii lu muy wundu lu fu muy jëm baaxul léegi si lañu ne dañuy commencé waat suñuy mouvement d'humeur si loolu moo tax donc démb ñu def benn déclaration ne dañuy dañuy dañuy grève à partir de suba pour ñetti fan nga xam ne dañ koy am dañuy am possibilité dàbbali ko waat donc pour wax état bi mu respecter engagement am parce que trop c'est trop. Euh, kon li ngeen di kaas Omar uh, dafa am link ak li nga xamante ni dafa am lien ak uh, revalorisation uh, salaire yi ci fonction publique bi. waa xam nga état nga xam ne bi doon na ko wax. waa xam nga état ba mu ba mu ba mu yokkee salaire récemment loolu mois d'août la woon. parce que damay rappele ne donc euh, administration bi euh, donc euh, presque quatre-vingt-huit pour cent la ñu yokkaloon seen salaire mooy enseignants yi santé euh, administrateur civil yi secrétaire d'administration yi mu desoon douze pour cent yoo xam ne revaloriser ñu leen woon ñun si douze pour cent yooyu lañ bokkoon secteur primaire bi te état dafa waxoon ne loolu mënul nekk léegi après mu ñëw def ko léegi ba mu ko defee mu ne voilà comme am ngeen si revalorisation yi maanaam seen prime interne dañ koy supprimer loolu ñu xam xamal leen ne ne mënul nekk parce que revalorisation bu ngeen mu mujj a def si fonction publique ñëpp agent yëpp am nañ si ñoom ñëpp xam nañ ne fii magistrat yi la ñuy njëkk la la ñuy gën a fay te magistrat yi am nañ si revalorisation yi ministère des finances bu coupé suñuy indemnité mais ñooñu xam nañ ne am nañu ay prime comme mun nañ ko citer prime heure budget prime incitation au recouvrement plus seen fonds commun euh, ministère du travail am nañu prime interne plus revalorisation ministère des mines pareil ministère de la fonction publique pareil lu tax ñun secteur primaire donc euh, ñun prime boo xam ne donc depuis mille neuf cent soixante musuñ ko am benn prime boobu la léegi nag ñu ne dañuy dagg prime boobu te alors que revalorisation bu ñuy prétexte ñëpp a ko am te principe de substitution amul fenn munoo donc euh, nit ñu am acquis nga ñëw joxaat leen beneen acquis nga ne donc da nga koy substituer loolu amul fenn ñun nag loolu munuñ ko nangu tey munuñ ko nangu suba moo tax ñu ne état nañu delloo suñu prime jàmm ne ñooy parce que sinon ñun dinañ gën a dàbbali te loolu moom donc cette fois-ci waxoon nañ ko sénégalais yi duñ tegg tànk tey duñ tegg tànk suba. donc euh, Omar Dramé dernière question donc bu 72 heures yi jeexee euh, lan def pour continuer seen plan d'action bu dee état bi indiwul saafara. Mhm. waaw 72 heures yi suñ jeexee parce que ñun lenn rek lañ bëgg état bi woote plénière bi ñu jël décision finale léegi loolu suñ ko deful ñun nag wax dëgg fa la am nañu yeneen. Euh, plan d' action yu ñuy préparé déjà dinañ commencé dinañ def sitting jam ñaaju semaine bii di ñëw marche mu ñu déposé woon ba ñu annulé woon ko pour jox négociation yi sens dañuy déposé waat demande de marche boobu noonu en ensuite donc dàquñu sax grève de la faim maanaam chaque fois si moom lépp loo xam ne mun na lompoñal donc comme comme réew mi si secteur primaire bi lépp la ñuy taxawal donc pour que vraiment état bi xam ne ne ñun dañ ñoo mer ba futu te loolu donc lenn moo ko waral mooy seen manque de respect ak seen dilatoire te waxoon nañ leen ko ñoom lu ñu waxoon yëpp def nañ ko au retour ñoom ñoo waroon respect seen engagement donc comme loolu amul cette fois si moom kenn du ñu de wax ak lu ñu mun mënta dégg ba ñu bàyyi ñun lenn rek moo tax ñuy bàyyi suñu prime ñu delloo ñu ko. Omar euh, Dramé Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. maa ngi lay jaajëfal man aussi di leen remercier ci invitation yi jërëjëf. may fàttali ni membre nga ci cellule de communication bu intersyndicale euh, secteur euh, primaire bi maanaam liggéeykat yi nga xam ni ñoo nekk ci secteur primaire bi. merci beaucoup.